Mm. wama rawa nga soloo na ko dégg kullu qarinin bépp maas an axi ci mbokkam taarifu na nga ko xam ne àqan dëgg wan taxi nga tànn ko moo nekk mu dabbajun mu dabba ci diibaaj la jóge diibaaj mooy wëcu rek jàng nga oxlaqu lahu diibaajati diibaajatin googu ci la jóge léegi nag xadis mu dabbaj mooy ñaar ñoo xam ne ay morom lañ ñoo bokk at ñu tolloo wala ñoo bokk même sëriñ bu leen jàngee jàngal kenn ku nekk jël ci sa morom xadis dooñu si léegi mu dëbb ñu ne jàkkaarloo sa sa kanam da nga koy jàkkaarloo sa morom jox ko mooy mu jàkkaarloo yow jox la waaw mooy mu dëbb mu fekk nga jox ko moom mu jox la mu léegi mu dëbbaj bu dee yow kese yaa ko jox sa ay morom ngeen kooku riwaayatu aqraan lañ koy tuddee mooy hadis bi nga ko jëlee sa maas sa morom morom nag mooy ma ngeen bokk arba ngeen bokk kenn mën ki leen jàngal yéen ñaar ñi a bokk même fu ngeen jàngee hmm. waaye da ngaa nettali hadis boo xam ni ci moom nga ko jëlee moom it mu am na hadis boo xam ne ko nettali jëlee ko ci yow kenn kenn ku nekk jox na moromam loolu mooy mu dabaj yëpp waxul ay tuur la yére waaye daanaka la nga njëkkoon jàng daal mooy sarte xadis saxi gis nga ne daanaka mooy mustalax ay seetlu yeneen yow ay tuur la yoo xam ne daanaka bëriwul ak kii هذا اللي هو ما القسم الصابي وليس من ما يقال نعرف كل جمل من من أقسام الحديث الخيالي المذكور إن تدري في هذا النظم الكبير وهي هو المدبي ولا ينسى هذا اللي مدبي إنه ينقم تكيني ملا وانا اللي مدبي من بدالة تمدبي سما بوقو إذا بلو إن جاري نسمو حديث ممجلين قو سمو رمك جيري قو سمو رمك مدبي سما نعم دو دقفر يعني من الحديث ونو لكنا ممسخفر Hmm? mais istilaax la nangu ko boole ko ci yàlla moom mustala moo tax xam-xam tamit lu dëgg yàlla ñu koy yaatal waaye bëgg tënk nit ñi lu lu xew nga bitaa bu yàggee nga sonal nit ñi waarafoo xam na ko bi xawle ci xam rawaa ilax ba mu jeex fàtte naa hadiisu Fadaala bunu Ubayd bi Fadaala moom moo jënd caq bi da ko def koo jaay dégg nga da nga ko fàtte woon foofu wal xariinu kooku moom al mooy ka kay ànd yow al musaaxibu mooy aji ànd ak li ma ñëwee ka xam ne rawaa neetal naanu ci moom kooku mooy xariinu al muwaafiq ka aji dëppoog loo ko fi sinni ci at la aw fil axri wala ci jëlaani cheikh ci benn sëriñ koo xam yaa ngi moom yéen a bokk jàngee ci sëriñ bii sa xarin la mm-hmm. sa morom ci at tamit sa xarin la mm-hmm. ida qaala bu ñu waxee fulaanum diw qarinun maas la li fulaanin ñeel diw ay lu mu ne mu mushaariku aji bokk ak la lahu ñeel ko imma benn fi sinni ci at mm-hmm. aw fil aqsi wala si jël ani cheikh si sëriñ allazi bi nga xam ne rawaya nettali nañ anum jëlee ci moom buñ ne diw sa qarin la mooy yéen a maase wala yéen a bokk jàngee ci sëriñ bi misal an yekkoon ni mu nekk xuduuru maase nag teew li cheikh yi ci sëriñ bi mu tax xaari ma daal di jege masalan ci misaal fii sax waaye day dindi ci benn at. yow ci misaal at mi nga jàngee sëriñ bi waaye at mi xaajee moom la yow moom it jàng jàngee sëriñ bi. comme Ashba Sall morom ngeen. bu jàng sëriñ bi dem ba génn yow. moom mu door a ñëw nekku leen morom. mën ngeen a bokk leen jàngal fekk yow moom ba muy commencé fekk yow mufti nga. nekku leen morom mhm. waaye bu ngeen xawee tolloo mhm. niveau rek xarin la pour yow ak mhm. ngeen bokk même téere yi ngeen jàng wala yooyu fa aqraanu maas yi isa rawaa bu nettalee ahadum kenn si ne ma ne aqar jëlee ci keneen fa ne zaalik ne ko loolu yusammaa dañ ko tuddee ndal muhaddisiina ci muhaddisiina yi riwaayatul aqraan waaye mooy kenn ki nettali morom keneen ki rek bu fekkee moom rek moo la nettali yow nettaloo ko wala yow yaa nettali moom nettaliwul la riwaayatul aqraan lañ koy tuddee mooy nettali boo xam ne koo jëlee say morom wala yaa daal yi moo tax tajud da nga fekk fii kutubi rijaali si téere góor ñi andoom na ñoom yaqul dañuy wax ne wa riwaayatu nettali an fulaani ci diw min riwaayatul aqraan mu bokk si riwaayatul aqraan هو يا morom lañu woon ay lu mën a mu istarak andoo ne moom istarak bokk na maa waan na moom fi sinni ci at aw fil axri wala si jëlaani cheikh sëriñ waaye fen rawaa bu nettalee kullun képp minumaa si ñaari morom yi anil axri ci keneen kenn ku nett jëlee sa si sa morom xadis foofu xadis boobu mooy mu dabbatun fa masalan ci misaal ana man rawaytu net naan xarini sama morom xadiisu innamal amaalu binniyaat misaal rek la woo moom rawaa net naan ni ci man xadiisu laa yaqbal mu jàpp yaa jox sa morom innamal amaalu binniyaat si yow la ko jëlee waaye laa yaqbal allahu salaata ahadikum yow si moom nga ko jëlee kon ku nekk net na moromam xadiis fa haza li yakun da nekk mu si diibaa jot la jógee أو يروي ولم يتر عني جريت منسخ نفس الحديث جمي حديث الذي بين خمنا رويته نسلنا آه، سلوناك أنا من وأكون منك أنا من قد رويته نتلنا كانوا جريت مم من طريق شيون وهم رواه نتلناك عني جريت من طرق آخر شيون يون xam حديث ما نكو جريت ko jëlee لكن من yu bokkul léegi man dama ci am silsila boo xam ni ci Abu Hurayra la jaar mu ci ibnu omar la jaar nga ne tili mokkul ba tey mu dëbbaj la waaye kenn ku nekk sa li nga jox sa morom moom la la jox mm-hmm. mais yoon wi nga jaar ak sa morom moom jaar du benn mm-hmm. faadaal yu sama lañ ko tuddee ay dem mu dabbajan wa maa kaw nii mu nekk mu dabbajan lu tax mu dabbaj xaalu ñu ne innoo nag moom maa ñu ngi ko jëlee min di baajitul waj yi mm-hmm. ay lu mën a mu jaanibul waj yi wàllu kanam su ko jëlee li an na kulla xarin ndax bépp maas yaltafitu day gersu ila saaxibi ci moromam li yu xaddisoo pour mu nettali ko fa yaltafitu mu gersu ila ñu ci moom saaxiboo moromam li yu xaddisoo pour mu nettali ko fa yakkoon mu nekk xat xaabaroo jàkkaarloo na moom bi di baajitu waji yi ci ka wàll kanamam li baajitu ma jaane bi waji hmm? yow da ngay gersu pour nettali ma moom mu gertu pour nettali la kenn ku nekk rek sa sa wet gi wan nga ko sa morom obi tamit ci dëgg-dëgg danaa doon istiqaaq naka xoteeg gi istilaahi yi luñ dëppoo rek la wa laa bu dul loolu la qul naa dañu wax ne inna kulla xadisin naka bépp xadis naka bépp waxtaan benn isnaani diggante ñaar yettaju day jublu fii ci ma ahaduma kenn ki ilaa axar yem ci keneen ki fay noonu naka mooy sumaat dañ koy tudde mu dabbajan bu doon istilaa dañ naan saa yu nit waxee dara jàkkaarloo yow rek mu dëbbaj la loolu duñ ko duñ ko tënk ci aqraan yeeg ñurul aqraan ndax kenn ku nekk war nga sa morom karamam laakin ulamaul mustalax waaye nag borom xam-xam mustalax xasuwu jagle nañ ko fii moo tax istilaa dafa baax xam istilaahu nit xam lan la ci jublu balaa nga ko ŋàññi te balaa mën ngaa dem rek ci tasawuf fekk la ñuy wax benn baat boo xam ne xamoo ne firi nga ne xaasa bidaatun ndax mosuñ ñëw ci diine mosu ñëw yow mu dëbbe dafa mos ñëw ci diine te boo xoolee ci maanaam la ngeen ko tuddee du loo rek moo nekk mu dëbbe balaa ngaa wax aw nit xamal seen seen istilaax mustalaaxu nit da nga koy xam door a wax ak moom waaw musaat dir xuloo fi istilaax si istilaax baat bi ngeen ko tuddee loolu ñoom ñoo ci def boobu loolu amul xuloo mais la baat bi ëmb kay ngay xool lan la. Hmm? wa riwaayatul mu dabaj nettali mu dabaj boobu moom añeer bi mooy mu nettali ku lu xarin bépp maasan xarin yi ci maasam imma benn xadis a waaye dan benn xadis mhm. aw ak sa wala ëpp ci benn xadis ku nekk jëlee sa morom daal mu dabaj la boo xam benn xadis nga jëlee ci moom lu ko ëpp والفرق تقل بينهما سين دينت موي <coughs> ان المدبج حديث المدبج يحدث دينة كل كيف من ما سيم نان اخر تي كنن كما حديث المدبج اما الاقران وهي حديث الاقران روايه الاقران فاحد ما كان سنم يحدث دينة اخر تي كنن فقط دون بدون ان يحدث سيرو مويت عنو سيم صاحب مروم روايه الاقران موي كان رك مو نيت لي مروم واي كنن كي نيت كو روايه هذا من روايه الاقران <coughs> <coughs> waaye xaaloon <coughs> almuallifu taalikat bi raximu yàlla ko yërëm allah ñu ngi jàng a gisu muttafiq ak muftariq ñoom ñaar moo leen teqal benn la xam nga mooy mooy ñaar xam ne ñoo bokk même tur muttafiq lañ mhm. labsan si nuñ koy tuddee waxat ak nuñ koy bindee waaye jëmm ñaari jëmm lañ bokkuñ jëmm yu bokkut dangay ñaar ñoo xam ne ñu ngi ñaar ñoo ñu waaye ndax benn kii Ahmad mu xees la kii Ahmad mu gàtt mm-hmm. ko ñaari jëmm lañ mm-hmm. waaye benn tur la ñoo bokk nu ñuy tuddee tur yi ñoo bokk nu ñu koy bindee mm-hmm. loolu dañ naan muttafiq la ak muftariq muttafiq lafzan wa xattan muftariq aynan wa zaatan loolu nag muy bokk ci xam-xam yi sanad bi ñuy nettali xadis mu ngi gis ñaar ñoo xam ne Ahmad lañ tudd mais Ahmad mi daif la Ahmad mi siqa la léegi nag bu ñu nee xaddasana Ahmad xamoo ban Ahmad la ci. xadis bi dañ ciy sikki sàkk parce que xamoo Ahmad daif la wala Ahmad siqa bi la bu fekkee nag ñoom ñaari Ahmad yëpp. siqa lañ kooku amul problème bu ñu xadis na ahmad rek nga xam ne ahmad bu mën a doon dama siqal xadis bi xadis wér waaye muttafiq muftariq dafa mel da koo teq de waaye fekk ñoom ñaar benn lañ rek mooy ñu bokk tur te bokkuñ jëm moo tax muttafiq aji dëppoo lafzan ci baat waxatan ak bind loolu mooy xadis loolu mooy muttafiq wa diddoo safaan ba waaw mooy sabab dafa mel ne hmm. waaye di doo sabab mooy duñ bokkul jëmm fii ma al muftariq moo aji mooy muftariq fii ma zakk naa ci liñ tudd hmm. waaye ut doo sabab bu ñu gis ne mooy sabab la hmm. moo ñoo xam ni bokkuñ tur bokkuñ tur namul ci loolu de ut doo sabab mooy buñ bokkul jëmm al muftariq fii ma zakk naa waaye ni ma ko jàngalee mën nga yaakaar ne buñ bokkul ni ñu tuddee tur yi bokkul ni ñu ko bindee loolu mooy muftariq هذا رجال هما نم ياق <clears throat> القسم أسان والعشرون ماي قاج فنتويت من أقسام الحديث خارج الحديث المذكور دينتو بفي هذا النظم كبير ويوم هو المتفق والمفترق وما يمنع فرق زي قد قسم واحد بين قدم يمنع بين لي خلافا ودك لما يظهر جلالا من كلام المؤلف جو خطار الكتب رحمه يوم الله يعلم وإذ جعلنا من النفل قسمين نار قد من نار قد أكبر وهذا القسم قد بيتعلق دنا أجي برواة سينة الحديث ومو ما إذا وجدنا بن فك اسم نار تور متفقا يدب لفظا تور تتد وخطا أكبر لكنهما وهي نار مفترقان دنا يتعلق ذاتا تجمو ay lu mën a mu ànd isma naka tur bi waaxidun benn la wal musamma jëmm ji mbooloo ma dañoo tudd Ahmad loolu lañu koy tuddee ak muftariq loolu nag ci sanad bi la aji waaye yoonam nekku ci yoxaadis bii nag du la waaye tamit mu xam-xam bi ndax taaju dañ soxla ilay ci moom ne allah yaqaa mu tàbbi adi ci baawu fa masalan ci misaal kalimatu abbas ismun tur la li rajul ñeel góor maqbul riwaayatu bu nangu ak nekk dem woo waaye moom it abbas ismun tur la rajul axara ñel beneen góor gayru maqbul riwaayatu buñ nanguwul ak ñettale fadali yusamma dañ ko tuddee al muttafiq wal muftariq ndax ñoom ñaar ñoo abbas lañ tudd waaye jëmm yi duñ benn fa ida raayna buñ gisee masalan ci misaal anna xaafisa la aji xam xadis yaqulu na xadis lañ nettali ma abbas ma abbas xuba tamu abbas ahadu shuyuxi kenn ci sëriñam la woo moom siqatun وهو وادي ثقة من ثقلة ثم يقول تم مرة بني أخرى بني أحد سنينات من عباس من عباس وتم أيضا بني من شيوخ من بوك سنين ولكنه يعني ليس يقول بثقة في ثقة مانام وادي أمنا نعيس سنين يوخ عباس كان لك ثقة كان لك بثقة نعم. لكن ثم يأتي مؤني هذا الحديث بالحديث ولا ندري قوم أين أين عباس كان سنين عباس هو bu fekkee addis bi ko nekk ne abbas lañ ko jëlee ñu xam ban abbas la léegi moo ne dàkkantaram ñu ne ko dem siq la beneen addis nag moo ne abbas bi nga xam ne mooy ko lool teg indi dàkkantaram ñu xam ne moom la moom addis boo xam ne addis na ne abbas rek indiwu dàkkantal xamul ban abbas kon ni ñu def fa yabqaa day des alxadis hadis maskuukan di luñ sikki indi naas ñu ne fi sixaati ci wéram ويسمعني سما نغوت لين اهل الفن شنو الفن بي بالمتفق والمفترق ما توري بان لا واي جيم يدو بنو وجه تسميتي لوتاخ ني تودي كون ظاهر لو فاج لا وموم الاتفاق موي بحسب الله في بات بي والخط اك بن مي والافتراق تخلقو بحسب المسمى تي توري في جيم يي كون مسمى ولا مسميات مسميات جيم مسمى موي جيم نعم. يعرف الاسم والمسميات ما اسماء والمسميات ما خمنا توري اك جيم Mm. wala mu xam bi amrun mbir la daruri bu mënul ñàkk laa na ma ndax ñoom ñaari sax talafa bu ñu wutee fi tawsiq ci hóoral mm-hmm. maanaam ñaari abbas yi si misaal ñoom ñaar ñoom nekkuñu dañoo wóor kii siqala kii danger saar day mujj alxadis hadis mahalla tawaqufin di barabu taxaw wax di def ci point atayeta benn ba mu leer man haza kan mooy abbas si mm-hmm. misaal فذاك انا بنك كل كيف من ما سمع ثقة ديكو وقد لا تزين كل من ما كان كل من النار المحدث كان في الحديث دي فين يكون لا يدو دولار لان حديث ان حديث سيبقى لنا ده صحيح ديكو غير فبك كان كان كل نفس من النار دجينا محدث بي ها فكان كل نفس من النار ثقة لا عايز ما هو بروبليم دا كنت مو داري حديث بيقول فالمتفق والمفترق يتعلق بالأجي بروات سنين تحدث بلا بالمتون وعجي وسيح وحدث بي وإذا كان بنك يتعلق بالأجي بروات سنين تحدث بي فإنه لكم ينظر دين قول إذا كان بنك هذا المتفق والمفترق كل كب من واسع ناسقة ذكور فإنه لكم لا يدور دور وإذا كان دولار وإذا كان ابنك أحد ما كان سيوم نار ثقة ذكور والآخر كان كدامي فان ذكورات فإنه لكم عند ذنب محل توقف توقف برب التخلين تخرج عليه wala yoo xam ne du ñu àtte bi si àtte xadis yi ci wér xadis bi wala daa fii du ñu àtte ak lottam. xataa yatabayyana ba mu leer al iftiraaxu fan lañ taq taqalikoo wala ittifaaq ak dëppoo ga maanaam kan mooy kan ñaari tur yi nga xam ne ñaari jëmm la. ñu tudd benn tur ba rek ñu tudd Abbas te Abbas ñaari ñaari nit a ko tudd. kii daayif la kii siq la. foo ñu xam ban Abbas la. door a door a àtte ci xadis boobu. haadaa yuriidu l-islaamu mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu yooyu it wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu